Batel Dior Ibou Ndiaye da ciy dugg fanaan wala Ibou Ndiaye day tas hôtel ba hôtel Dior Ibou Ndiaye hôtel Dior Ibou Ndiaye hôtel Dior cokkaas na léegi hôtel Dior hôtel Dior Ibou Ndiaye Hôtel Dior ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar Hôtel Dior door na léegi waaye dalul Hôtel Dior xeex na ak Ibou Ndiaye Hôtel Dior Ibou Ndiaye Obali Batel Dior Obali Batel Dior Ibou Ndiaye Batel Dior door na léegi waaye dalul Batel Dior Ibou Ndiaye bëgg a jàpp Arnold Dior a ngi reculer mu sens combat bi benn congu lay ne da bëgg a jàpp xeex nañ daw na jàpp ko Ibou Ndiaye jàpp na Obeuly xocc na ko da koy da koy daan waaw doole doole doole da ko jàpp song ko plaqué ko mu jaaxaan doole doxul jàmm Ibou Ndiaye ngoog mo ngay njuug Ibou Ndiaye ngay njuug waaw Ibou Ndiaye yi noonu vite fait bien sant yàlla bu baax. di sant suma ñaari waajur. waaw. waaw noonu la noonu la xale la dama ne si yoon. maa ngi sant bu baax a baax a baax. monsieur le maire Go Faye maa ngi koy sant. waaw borom mouvement réaction borom Parcelles Assainies waaw dama bëree man xale laa sant ñu ma xeex bu ma ko jàppee rek lamb jeex waaw maa sant yàlla bu baax. waaw bu bilaay moo tax ma jëlee tool joor te xam nga ay produit bu nga xam ngañ jugee ay mbaru dëkk ngañ buñ jugee waa Diofior jug sama mbokk séeréer yëpp maa ngi sant di leen gërëm bii mooy sama sixième combat cinq victoire benn défaite amaat naa combat le 26 le 27 diggante bay guy gee kii man maay bëre spécial bi man ak ngeer bu sab ngeer bu sab mi waaw ngeer lu mënti xew lu mënti xew maa ngi waaj boobu tamit jëw na avance jëw na avance waa dama ko jàpp rek yéeg ko naax su ma ko jàppee rek lamb jeex sant yàlla bu baax di waay walaay maa ngi sant sumay ñaar waaju sant waa Diofior di sant monsieur le maire Youssou Diom jàpp na si combat bi di sant monsieur le maire Go Faye maa ngi koy sant di sant sama waa koñ bu baax waaw yaan yaan baas maa ngi koy sant bu baax yaan baas maa ngi sant maa ngi sant waa Diofior bu baax di sant képp ku ma jàppale si combat bi di gaay monsieur le maire Go Faye maa ngi koy ñaanal mu jël mairie parcelle maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gaay sama waa koñ sama waa dëkk Moussa Diouf maa ngi sant sama waa équipe ñëpp di gaay kontaan naa trop